Hey, why, why, yes, yes, yes. Je suis partout, tu seras. T'inquiète même pas, je serai. Je ferai tout ce qui voudra. Tu es ma chérie, mon ami. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. waaw jaar euh, ci yam si le design gis nga def samay jarax bu baax gis nga jarax yi waaw préparé ko di jege jam incha allahu rabbi gis nga signé waale incha allah mais ñambe waaw dafa loo saf mais ñambe waaw maa kër gi war nga koo saaga nag su ko nekk sa signal bi dañ ko war a saboté nag moom non saboté wu ma say dàll baax na say design baax na. waaye sama bi ko jeex. sa bi Samba Kende de non man maa ngi sama buntu kër de. déedéet. te man damaa yor sama carte presse. dañuy doxaani. dañuy doxaani jëm. suñu gel yi ñoo dem bala ñoo dem gel. suñu gel yi jox man mu toll ni man. yaa mën a yàq de. rendez-vous lañ jox suñu gel yi nan daw bala la ñuy doxaan. fii ci ginnaaw fi ñuy doxaan am na tur. waaw waxal tur fi ñuy doxaan ak ñi ñuy doxaan dox. Seexu tey suñ gel yi kontaan nañ de. <laughs> waaw kontaan nañ lool. lañ leen def la lan def la. dañ maa filmé lan leen def la moo tax ñu kontaan. xam nga couvre li ngay def da nga koy ga koy def mu gaaw. non waaw surtout Seyna. waaw. yaay waaw soxna soxna sax moo gën a kontaan. soxna. <laughs> yal na la fay. saa waaw jaar euh, ci yam si design gis nga def samay carax bu baax gis nga carax yi. waaw préparé ko rabbi gis nga signé waale incha allah. mais ñambe. waaw. dafa loo saf. mais ñambe. waaw marqueur bi war nga nag ku nekk sa signature da nga a. sabote nag moom. non sabote wu ma say design baax na. waaye sama bi ko jeex. sa Samba Kendele. man maa ngi sama buntu kër de. déedéet. te man damaa yor sama carte presse. dañuy doxaan. dañuy doxaan di jëm. suñu yi ñoo dem bala ñoo. dem suñu gel yi jox man mu toll ni man. yaa mën a yàq def. rendez-vous lañ jox suñu gel yi nan daw bala. fan lay doxaan fan fan fan la ñuy doxaan. fii ci ginnaaw am na tur. waaw waxal tur fi ñuy doxam ak ñi ñuy doxaan dox. Seexu tey suñ gel yi kontaan nañ de. <laughs> waaw kontaan nañ lool. lañ leen def la lan leen def la gën maa filmé lan leen def la moo tax ñu kontaan. xam nga couvre-feu li ngay def da nga koy def mu gaaw. waaw surtout waaw. yaay loxo. waaw soxna soxna sax moo gën a kontaan. soxna. <laughs> yal na la fay.